terrain ak APES euh, ba pare euh, ñu ñu def euh, vraiment une campagne de communication sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes digitales boo xamante ni adduna bi yëpp démb gis nañ démonstration de force bi nga xamante ni candidat waaw candidat Bassirou Diomaye Faye moom la def RTS ñëwati encore yokkaat ci yokkaat ci débat bi xar mi karaw parce que nu mu en privant Euh, Bassirou Diomaye fay ou son mandataire de temps de parole léegi dañoo jël attention bi yëpp cristalliser ko ci moom finalement parce que débat télé yi après le soir bi ñu waroon wax ci yeneen candidats yëpp dañ ko consacré pour wax ci Bassirou Diomaye fay parce que li ko RTS def et cetera et cetera et cetera donc euh, pour man ils ont joué euh, le jeu de Bassirou Diomaye Faye ils ont fait son affaire en tout cas euh, en le privant de parole trois minutes Euh, mënoon nañ ko diffuser bàyyi Moustapha Guirassy mi nga xamante ni mi nga xamante ni moom fi te loolu man je ne pense pas euh, te boo gëstoo tamit euh, loi bi code électoral bi mu wax article L L L cent trente mi ngi appeler euh, l'organe de régulation à que mu veille à ce que tous les candidats soient mis sur le même pied d'égalité en ce qui concerne le temps de parole euh, temps de parole à RTS loolu Sénégal moo ko war a lijjanti balaa muy lijjanti diw moo war a wax place diw wala diw moo wax place diw ah, li mu war a njëkk lijjanti te mm-hmm. loi bi wax ko ko mooy tous les candidats nekk sur le même pied d'égalité bu campagne bi commencé en ce qui concerne le temps d'antenne euh, euh, la RTS pour man Euh, loi bi même su fekkee prévoir woon ni benn candidat bu nekkee prison lan lañ ciy def mais loi bi lim la tënk ci loolu nga war a yem mooy nee na nga lijjanti ba ñëpp ñi nga xamante ni ñooy candidaté ñu nekk sur le même pied d'égalité que ce soit euh, Bassirou Diomaye Faye ou un autre war ngaa lijjanti ba seen temps de parole jàll RTS comme ni la ko loi bi waxee qu'est-ce qui empêche. euh, la RTS de prendre ses caméras d'aller au Cap Manuel euh, basiri euh, Bassirou Diomaye Faye le règlement intérieur de la prison interdit aux détenus de s'exprimer en public mais la loi électorale est au-dessus du règlement intérieur de la prison loi bi moo tënk règlement loi moo nekk ci kaw règlement donc quand la loi veut quelque chose euh, elle doit pouvoir l'obtenir sur le règlement suñ jëloon seeni caméra dem foofu filmer ko pendant trois minutes Euh, mu ñëw euh, wax euh, li nga xamante ni mooy programme am wala ñu boole kook ay garde pénitencier ñu indi ko ba RTS mu toog wax trois minutes am après ñu delloo ko parce que dëkk bi détenu yi peut yi fi nekk yépp Bassirou Diomaye Faye moo fi ki fi ki fi ki fi ki fi assuré euh, nu mu tuddati euh, garantie de représentativité bi gën a foor moom la parce que c'est un candidat à la présidentielle mm-hmm. amul benn intérêt pour daw génn réew man gisuma intérêt bu mu am pour daw génn réew c'est un candidat à la présidentielle et il fait partie des super favoris euh, de cette élection là ban intérêt la am pour daw génn réew mi mm-hmm. indi ko ba RTS e mu enregistré temps d'antenne am dellu Cap Manuel toog jàpp njàmburam bu fekkee mu leen ko libéré comme ni ko comme ni ko kii bu bëggee parce que nag wax ji foofu la tamit. bu fekkee dem leen ko libéré ba libéré tey je suis pas na ma man personnellement. bu fekkee dem nañ ba mënuñu ko libeere ah bon c'est une c'est un c'est un problème peut-être euh, du code pénal et tout euh, loolu mun nañ leen ko concéder ak charge yi tegu ci boppam yëpp même si la loi d'amnistie vient tout yi Euh, elle n'est pas encore promulguée il faut au moins six jours tey jii mooy sixième jour bi après président peut-être dina ko promulguer fii ak suba wala ginnaaw suba président bu promulguer loi d'amnistie bi euh, Bassirou Diomaye Faye amatul benn raison pour nekk ci pour nekk ci nekk ci kaso bi. dañ ko war a euh, libéré de facto loolu automatisme wala dafa amaat procédure. bu ñu pro bu ñu promulguer charge yi effacé nañ ko. c'est ça que ça soit pour Diomaye que pour Sonko. Sonko charge yi ñu tegoon ci moom yi mujjee teg ci moom effacé nañ ko. contumace bi day day day day dafa dafa dafa anéantir contumace bi nga xamante ni Adji bokkul ci bokkul ci amnistie bi mhm. mais day anéantir de de de fet yi nga xamante ni mooy condamnation bi ñu ko condamné woon mhm. procès bi dañ ko war a normalement dañ ko war a dañ ko war a reprendre donc après mun nañ ko libérer provisoirement en attendant euh, la tenue d'un nouveau procès en ce concerne l'affaire Adji Sarr mais la loi euh, euh, portant amnistie une fois promulguée Bassirou Diomaye Faye n'a plus rien à faire euh, détention mmh. d'accord alors ñoo taxaw ci ponk bu nekk rek ci campagne bi yaa ngi koy yaa ngi koy junj léegi ñoo taxaw ci Benno Bokk Yaakaar après suñu ci jógee dem ci Pastef mmh. parce que gis nañu bu ci nekk foog naa wute mmh. sax foog naa gis nañ ko. alors benn Bokk Yaakaar on sent nettement le malaise malaise bi en tout cas ñu ngi koy sentir ñu ngi sentir ni que euh, euh, euh, ça ne va pas. pourquoi je sais pas certains diront problème de candidat d'autres diront peut-être leneen ak leneen mais yow au-delà de problème de candidat choix de candidat bi jàppoon ne am na beneen malaise bu am. kersa est-ce que amul ndax xam naa ne dina dama leen tooñ na tooñu ma leen nag mais est-ce que finalement quand je dis kersa mooy yenn saa yow ngay xeex ak nit gis mbooloo mu àndal. mu mu mu mu mu mu mu tiital la. Mm. xam nga yenn saa yi également nga nga am problème nit gis mbooloo bu muy àndal mu xaw la déstabiliser est-ce que ñoom amuñu keesa pour wàcc ci kaw te wàcc ci kaw tali bi jàkkaarloo askan bi. da ngaa jàpp ni da jàpp ni seen candidat il ne dañoo jàpp ni seen candidat il ne fait pas le poids face à la force politique Pastef loolu nga jàpp. waaw bokk naa ci ñi ko jàpp. ah mais en fait pour le choix pour man pour le choix. quand on voit ce qui se passe sur le terrain en tout cas. après nag les ah, dellu le 3 juillet. Mhm. Macky Sall jàkkaarloo ak Sénégalais yi leen doon ma du ma une troisième fois léegi le lendemain ngay gis waa APR def euh, réunion ni ko suñu kàddu tënk nañ ko jébal la ko nga choisiral ñu. koo choisir ñu ah. choisir ñu ànd nañoo moom léegi. foofu la problème yi commencé pour man Macky Sall tergiversé ay un mois trois semaine un mois après mu ñëw choisir Amadou Ba lan moo xew après dafa choisir Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye dafa démissionné ci saasa ñu dee présenté wu Boun Abdallah Dionne génn dee présenté wu buy Boye Diao génn dee présenté wu donc déjà fracture yi commencé woon na foofu fracture yi yemul foofu ñu dawal am ñu bëri ñu rallier aussi euh, ci ci ci choix wu président bi ñi nga xamante ni peut-être jàppoon nañ ni euh, vraiment président bu choisir peut-être am na benn am am na benn influence encore bu muy exercer ci pouvoir bi ñoo ñu bëgguñoo peut-être perte seen privilège après ñu mujjee toog ci appareil politique wala appareil euh, gouvernement bi pour conforter le choix du président euh, mu am ci kenn koo xamante ni quand même c'est une forte personnalité au niveau de l'APR muy Abdoulaye Daouda Diallo mm-hmm. mu toog hésiter lu yàgg waxul dara dafa bokkoon ci woon dafa bëgg présenter wu euh, pour euh, jiite bannière APR bi léegi ñu gis ni président bi mu ko woowee peut-être il a forcé la mais ñu gis keroog bu muy def déclaration ni day conforter le choix du président tuddul sax turu ki nga xamante ne moom la président choisir ñu gis ci ñu lire euh, ci discours am benn mépris bu mu am ci candidat boobu nga xamante ni choisir président président choisir nañ ko pour man problème yi foofu la njëkk a commencé te ñëpp xamoon nañ ni problème yi dina weesu foofu parce que après bu ñu dawalee tuuti dem deux mois trois mois dugg ci parrainage yeeg yooyu noonu ñu euh, commencé collecter ay parrainage yooyu ñu gis ay ministres yoo xamante ni dañoo jege président ku ci mel ni Mame Mbaye ñu génn commencé tiire ci kii nga xamante ni mooy candidat bi ñu choisir muy Amadou Ba ku ci mel ni Thérèse fay Diouf la même chose ku ci mel ni Souleymane Jules Diop la même chose ay conseil bu jege président ñu génn commencé tirer. ci le candidat euh, Amadou Ba te président waxul woowu ci kenn recadré ko ni ko kii sama choix la yéen ma waxoon ma choisir choisir naa kon tënku leen ci président waxul dara daf leen bàyyi ñu continuer au contraire di tirer sur le candidat euh, Amadou Ba ba pare euh, bu ñu demee ba nag nga xamante ni conseil constitutionnel joxe na listam group boobu ñoom ñoo njëkk dem ci télé di defendre le report de l' élection Thérèse Faye Diouf suivre nañ ko TFM. mu ni moom il est pour ñu reporter élection yi wax wax wax wax wax pour euh, après accusation yi nga xamante ni tegoon nañ ko ci mhm. euh, kaw seen candidat muy Amadou Ba mhm. mu dem ba wax ci ni loolu dañ ko war a leeral ba mu leer donc nga gis ni vraiment dans dans dans dans cette coalition là ou dans ce parti il y avait de réels problèmes waaw candidat bi ñu choisir contenté wul woon non seulement euh, bon nombre de personnalités mais da ngay gis ni ci biir la majorité peut-être ñi nga xamante ne ñooy def force APR ñooñu d'accorduñu woon ak choix bi nga xamante ni président moom la choisir mais c'était trop tard pour changer de candidat pour man parce que dugaloon nañ ko ba ñu contrôler ay parrainage am ba valider ay parrainage am donc à cette étape précise mënuñu ko woon dindi lan moo fi mënoon a nekk mooy ñu reprendre le processus peut-être changer de candidat reprendre processus boobu pour man moo indi ñu annuler élection yi abrogé décret bi nga xamante ni moo convoqué woon collège mm-hmm. électoral bi waaw moo jur coow lu yëpp mm-hmm. pour man loolu lañ bëggoon c'était c'était c'était c'était contre Amadou Ba mm-hmm. peut-être nag loolu antuwul bi ñu demee pousse pousse pousse ñu gis ni dëgër na communauté internationale def pression bu mag à l'intérieur du pays il une forte pression aussi ñu reculer ba ñu am date élection malgré qu'on a convoqué et tout ñu jàpp le 24 mars mais gis nga ni ba léegi bàyyi wuñu euh, tey jii li ci li a fës bi campagne bi commencé démb mooy Amadou Ba kenn gisu ko fësul lu mel ni dañ ko isolé moo ak mu àndal euh, ñoom euh, vraiment wéet nañ ci li nga xamante ni moom lañ commencé campagne bi tey jii journaux yi génn ni euh, fonds yi nga xamante ni sax moom lañ ko waroon a jox pour mu campagne fonds yooyu jotagu ci. finalement est-ce qu'il n'est pas sacrifié et comment ngay euh, justifier wala expliquer autant pour que après tout on l'entend pas on ne voit pas. on dit absolument dans la position. se trouve c'est un mu génn euh, pour affronter frontalement le président euh, Macky Sall et ceux euh, qui parlent en son en son nom